asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi chaîne football TV ñu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa ne defal leen vidéo pour ñi xamantene xamante ne doon bés chaîne maa leen wax welcome bienvenue abonné leen cliquer leen si ko boobu ngeen gis vidéo bu ñu ni nii ko si daan bu leen fàtte tamit vidéo bi c'est très important mbokk internet yi tey dañu ñëw wax si match bu Pape Matar Sarr bi xamantene dafa def un grand match grand rendez-vous surtout match bi xamantene ne ñëpp ñoo ko doon xaar tey di foofu ci Angleterre si diggante Tottenham ak lii di Manchester United bi ñu wax ne sax favori la pourquoi pas jël championnat bi donc mu nekk benn match boo xamantane pamata sax Matar Sarr dugal ne bi mooy premier jour bi dugal bi en championnat Premier League Onana donc loolu rek <laughs> c'est historique même si ñeneen dinañ la wax ne peut-être damay tooñ parce que Cameroun Sénégal moom dañu mayante dara quoi donc Famanta Sarr def un grand match à côté de Bissouma Madison mu nekkoon ci ci kaw euh, numéro 10 Chondo euh, lañ ko présenté noonu la bëgg Famanta Sarr di jouer ak moom donc Famanta Sarr man li ma doon xaar ci moom dëgg-dëgg tey gis naa mooy les passes qui cassent les lignes a Sarr dafa tàmmoon di jouer rek dama lay jox ma récupérer joxe si côté yi nga jox ma la doon on sait que Pamela ça même peut-être catégorie bi ñu koy découvrir c'était bien joueur bu pour tout le temps football am vers de l'avant vers de l'avant même au niveau de match da ngay gis ne vers de l'avant je pense que trouver le bon entraîneur bi xamante ne mën na le bon entraîneur bi xamante euh, am na ci moom yaakaar euh, et dinañ progrès dina progresser bu baax a baax parce que côté relais boobu ñu ko joué même si nag tey on peut dire que deux deux milieux terrain basse lañ teg yu nekk si ginnaaw donc en général bu ñu waxee basse rek numéro six benn joueur moo tax ñuy wax mais boo leen xoolee bu baax seen classement Madison moo nekk ci kaw c'est un joueur boo xam ne joueur relais mais assez technique et que le système ak euh, mën na changer l'animation et tout donc moo tax da nga doon gis Pape Sarr à gauche à droite ci kaw eh, as parfois Madison sax bay ngay mu dem moom mu xaar donc mu nek ben pamata hyper intéressant qui a fait un grand match donc euh, man ay match est ce que manul surtout en première ligue parce que match bi mu ko mu def un grand match on peut dire que Ligue des Champions là du côté de San Siro Milan il a fait un grand match c'est match boobu non muy match aller boobu donc tay nak il a réussi son coup il a gagné na ay points ci kanamu supporters yi parce que il faut nga am crédibilité par rapport aux supporters ñom ñoy nek ci réseaux sociaux yi ñoy nek ci magazines yi dañ ci bind ñoy nek fep supporters dirigeants coach donc ek lii nii liggéey la quoi na yok volume bi na yok football offensif bi na yok jeu bi xamante day hyper offensif parce que ñun ñoo siy jëriñ ñun wa Sénégal on a trop de milieu terrain défensif li ma koy wax bari na pamata Matar Sarr ñu am comme créateur bu xamante voilà bu fu progresser am ben niveau bi ce sera hyper intéressant pour Sénégalais bi tok ci fauteuil yam jàkkaarloo ma Sénégal parce que di nga xam au moins dans le milieu amna un créateur te c'est bo parce que bo gagnee des matchs face à euh, un milieu terrain comme Mansan Mount donc Casimiro même si Mason Mount c'est un ailier mais dans le cas da ngay gis ne Fernandes mo gëna nek en haut à côté de ça y a Casemiro bi plein de Ligue des Champions am expérience nek international brésilien yow nga nek un petit jeune par matassar war a jàmmaaloog un match choc donc du match bu ndaw du il équipe bu ndaw nga Il nga def match bu ni mel franchement euh, pour moi c'est une très bonne nouvelle pour prochaine liste bi parce que ni ni rek.

am na lu mu gis nag contre sax gisoon na ko léegi dafa am yenn jours yu xamante ne à l'entraînement mën nañ ko toj mën nañ taxaw fële tirer mën nañ dugal seen i coup franc boo seetaanee seen vidéo ancienne ak seen yeneen club da ngay gis ñuy toj mais il n'arrive pas à supporter pression bi il n'arrive pas à s'imposer duñu mën a imposer wu donc Pape Matar Sarr loolu moo ko pour man manqué woon et donc confiance nous. surtout surtout surtout man manqué na parce que confiance entraîneur moo tax ngay dem ba jeex internet bi jaral lu ne parce que xam nga ne kii booy bëgg na la xam nga ne yow xam nga ne kii li li la war boo ko defee maanaam tu t'entraînes bien am nga hygiène vie bu normal donc mën nga jouer et jouer ko à Tottenham eh, le grand leader charismatique jóge na fa di Harry Kane donc oh, eh, même si a son mi taga capitaine bi jeune yi il est temps ku nekk révélé il est temps ku nekk won si bopp on parle de première ligue c'est pas un petit championnat match yi a métti match yëpp am intensité donc Pape Matar Sarr bu mënee dékk loolu rek euh, di nga gis ne gis nga Kouyaté carrière bi mu fa def maanaam longévité bi mu fa am gis nga Gana Gueye li mu fa am je pense que ñooñu noonu di ko conseillé bu jëlee conseil euh, staff ak entraîneur bu bees bi am sama confiance ak yenn joueurs yi comme Son bi xamante ne da ko bëgg lool di côté de l'équipe nationale y a des joueurs yu xamante ne am nañ longévité du côté de première ligue yàgg fa lool su ma ne Kouyaté dinañ ko conseillé je pense que avec la loolu yëpp ak encouragement yu koy encouragé dina dem mbokk li moo nekkoon vidéo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen